moom la wàcce ci yonent yàlla Muhammad sallallahu mu di ñu woo jëm ci yoonu texe alquran la tudd wala quran am na juróom fukki ci ak ñanant yëpp dana ñëw ci biir téere bi waaye yaari ci dañuy gën a siiw mooy alquran ak furqaan quran ñu ngi bàyyi ko ci xaru ji firi firi ak boole furqaan ñu ngi bàyyi ko ci farqu ji firi ak safale ndax xam-xam li ñu bari bari yépp ci ñaari baat ñooñu rek lay dellu jamu ak farqu jaam xolam war naa booloo ba du beesoon lu dul yàlla gannaaw loolu war naa teqale yàlla ak mbindeef pour def li ko yàlla digal bayi li moo tax de turi alquran yi gën a siiw di di quran baye ko ci xar ji jiri jamoo di ñëw di furqaan baye ko ci farqu ji nga xam ne ak fasala rek alquran mooy téere bi nga xam ne diimam diim la bu dox suñu digganteel suñu borom benn cat ba ñu ngi ci loxol yàlla bu mag ma benn cat bi ñun ci biir daani def lépp loo xam ne moom la ñu yàlla digal wax na ko ci téere bi lépp lum ñuy tere wax na ko ci téere bi lépp lum ñuy fayee ci bu ñu defee wax nañu ko bi lépp lu muy fayee ña bañ a def lam diglee ak ña def lam tere wax na ko ci téere bi de bàyyiwul dara ku ko xatee daal jubal nga ku ci jàpp xaw nga ci yoonu njub nekk li nañu xabaar yi ñu jëppoon ak xatee ci diggante ak li nga xam ne mooy dikk ci gannaaw bu wax ko la boo xam ne ñu ngi mel ni leetar la boo xam ne buuram ñëpp moo ko bind jëm ci ñëpp de téere la bon boo xam ne ku nekk war na koo dégg de ñi nga xam ne dégg nañu waxee arab suñ ko jàngee danañ dégg lu bari ci téere bi nam ma ku déggul waxu arab war ngaa bëree ba ñett la ko ci sa làkk de mu ngi mel ni chefu gouvernement fu mu fu mu bindoon tey leesar ci làkk woo xam ne dégguloo ko doo nelaw ba mu nekk de téere moom la yàlla bind jëm ci bépp jaam bon nag ku nekk war naa déglu li nga xam ne moom la làmboo de fànn bu nekk nag am na xaddu xaddu fànn ci nga ne moom lañ jublu ci nag mooy xam-xam boo xam ne ci la ñuy xamee maanaam waxu yàlla ji te na ko yonent firee woon ak raasixuuna fil ilmi nuñ ko firee ne alquran kenn sañ koo firi ci sa pexe koo firi ci xel yonent la yàlla ci yonent bi la ko yàlla wàcce woon moom la sant ne na ko bidalal ñëpp yonent firi na ko la ca tegu saawee firi nañ ko raasixuuna fil ilmi ñu jiitu woon ñoom it firi nañ ko ñett yi la ko ñooñu firee woon loolu rek mooy firi alquran waaye kenn sañ nga firi alquran ci sa pexem bopp ci firi alquran ci sa pexem bopp na nga wàcc sa sa place ci safara yonent wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam nag ne li ñu jëkkoon ko firee woon loolu moo tax jàng xam-xam ba mën a dégg waxi arab ndax téere yi yu jëkk yëpp yàlla wàcce na téeméeri téere ak ñeneen ci rek juróom fukki téere ñu ngi ko wàcce ci Siisa ñett fukki téere ñu ko wàcce ci Idris wàcce nañ fukki téere ci Ibrahim wàcce fukki téere ci Muusa lu jëkk Tawreet téeméeri yaamoo ñu wàcce nag Tawreet ak Linjiil ak Zabuur ak Furqaan muy téeméeri téere ak ñeenti téere mboolem téere yooyu yëpp li ci nekkoon yàlla boole na ko ci ñenante yi mboolem nekkoon ci ñenante yi yàlla boole na ko ci benn bi benn bi mooy alquran benn bi li ci nekk yàlla boole na ko ci saaru njëkk yi nga xam ne mooy faatihatul kitaab bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee léegi incha allah kon nag fànn boobu xam lu ko mooy li gën a war askanam nag mooy fànn yi gën a tedd ci fànn xam-xam ndax xam-xam bu nekk dara nga am ñu ngi aju ca la muy xam ne alquran nag ak firim alquran jëm yàlla jëlañuy xam ne te jëm yàlla jëm moo lu nekk moo tax ñu gën lu nekk tey waa xateem la réew mu nekk war na am waaw ku mën a firi alxuraan waaw ba mu dégg ko su fekkee ni xamut ci réew mi ñëpp bokk nañ bakkaat su fekkee am na kenn ku ko mën waaw wàcc nañu ko def de waaw fardu waaw kifaaya la ku ko tëral mooy yonent bi ak raasi ko rafet mi jàpp waaye mi ngi bàyyi ko ci wax yaaram jëkk ya lakk yaaram yi tam yi nga xam ne waaw ñooñu ñooñu jiitu woon ci la ñu xamee ci biir alxuraan la alxuraan la yonent xaaj la loo xam ne muhkam la ak loo xam ne mutasaabih la ne waaw loo xam ne mu xam la ñaari xaaj la loo xam ne dafa leer nañ ba nga xam ne képp ku dégg yaaram rek boo ko déggee daal di xam lu mu wax ni ci xul wala ahadun kooku moom soxla wu firilu ku ku dégg wala ahadun rek da nga xam lu mu tekki xam ne dafa ne waaw ak loo xam nag ne ku mu dégg yaaram bu baax man koo xam mooy li gën a bëri ci laaya ak loo xam nag ne soxla na nga xam fànn yëpp xam waaw naw waaw xam balaxa waaw ak badeo waa fa ko mën a xam de ak wax yaaram jëf yaa seen jéem ak seen way waaw nga soog a mën a xam laa yi ci def lenn la nag moom lënt la nga xam ne kenn xamu ko lu mooy raasixuuna fi leen ni lenn la itam lënt la ko lu mooy yàlla alquran bi ne nga xam ne moom lañ leen di bëgg a moom la yonent bi sallallahu alayhi wax ne ci biir boo xam ne jàng naa alquran lépp lu mu wattu ci alquran rek lu mën a day noonu la këram bu kawee ca aljanna dañ lay wax rek jàngal la waxtu ci alxuraan rek laay joo jàng iskale iskale bu ne day diggante ci leen asamaan iskale loo waxtu ci alxuraan rek foofu sa kawee ay tëddinam boo wattu jële bi yëpp jam ca kër ga gën a kawee ku jàng alxuraan benn xaraf yàlla dana la ci bindal ci fukki yiw yiw bu nekk mu war baa du naan lu ci biitam te waxuma ne alif laam miim xaraf la déedéet damaa wax ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la ñett fukki yu ngoog waaw xaar yoo xam ne ñett ñetti xaraf ngoog bu ci nekk ñu bind la ko fukki yu muy ñett fukki demet nag noo gën a jànge alquran alquran ji ne wàcce nañ ko ci yonent bi diidab ñaar fukki waxat ak ñett ndax ñu ngi ko yónnee ci Makka mu sax ca Makka fukki at ak ñett di leen xoo gëmuñu mu soog a génn gàddaay dem Madina ne am fa fukki at alxuraan jeex ñaar fukki at ak ñett la am di wàcc ci kaan bay na leen ci saaba yi ñoo xam ne ku nekk wattu na alxuraan lépp ñu bëri ci saaba yi nag ñii wattu nañ benn xaaj ñii wattu nañ ku ko xaaj ñetti xaaj benn bi Omar ibn Xataab Baqara ak Ali Imran la mokkaloon yonent bi génn guddaa dina waaye jiitam li mu xamoon yëpp daf leen a soxla tey ñu kontaan ci ñaari saar yooyu mu wattu gannaaw ga bëri na ba wattu alquran lépp Sayyidina Ali jot doon na wattu alquran ci dundam yonent ndax jihaad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi génne àdduna te gën a juróom benn si ba génn rek waaw alquran jëlee koo xam ne jàng nga ko lépp loo amoon ci bàkkaar yàlla daf la koy baal ko am sa doom jébbale ci jàngu mu jàng alxuraan bu ne baar araf bu jëkk ci bi yu baal ko moom doom bi baal ndeyam a baayam baal sëriñ bi koy jàngal baal ndeyam a baayam ci araf bu jëkk boo nag loo xam su tegee araf yu bari ay yu bëri saar yu bëri loo xam na soo xamee ne wattu na alxuraan su wattu alxuraan nag dana rambu juróom-ñaar fukki ci kër baayam ñu war a dem safara ak juróom-ñaar fukki ci kër ndeyam ñu war a dem safara yére bi nag bu ñu wax nga ne nii sëriñ yi xam duñ jàng ñu a'uuzu billaahi mina a rajiim a'uuzu dana ma muslu a'uuzu dana ma yéedu a'uuzu dana ma xettaliku billaahi ci yàlla mina shaytaani ci shaytaani ar-rajiim kadi kuñ dàq de maa ngi muslu yàlla maa ngi muslu ci yàlla mu magg mi mu musal ma ci shaytaani kuñ dàq ci de ñu tumati ci ñu tàmbalee boobu baa téere bi ku bëgg a dugg ci téere buur nanguram mën a day doo sañ ñëw mukk dal di dugg laa bëgg da nga diisoo bañ leen a duggal doo bëggee jàng alxuraan nag mel na ni yaa ngi bëgg a dugg ci téye wax ak yàlla moo tax doo ko sañ lu may bët nga fëggee buntu ba laaj ndigal fëgg buntam yàlla laaj ko ndigal ci dugg ci téyam nag mooy baatab a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yonent na ko ca jëlee ko ca xàll wa jëlawin maafoos ñu jëlee ko ca xàll wa mu jëlee ko ca rabbu nasati wa tabaraka wa a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yetti tëgg ñëw na ci alquran a'uuzu billaahi samil aliim mina shaytaani rajiim a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa samil aliim waaye tëgg bi gën a yëg waaw ba moom la ñuy jàngee mooy a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim rek moom la yàlla wax ne waaw izaa qara'ta alquran fasta'id billaahi mina shaytaani rajiim soo bëggee jàng alquran di ko wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim rek a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim mooy maa ngi mucc ci yàlla ci seytaane suñ dàq si wala wax onse billahi mina seytaane rajim nag xay xay àddina ñetti xaaj la xay yoo xam ne ci sa daf lay xéefarloo nga xam ne dafay waral nga taxee dell ci ne ci sa lay wàcc ak xay woo xam ne du ci diine du ci yaram lu ci nekk ci ñetti xaaj yi soo koy seet amul dayo xay yoo xam ne ci diine lay dellu te doo gëm yàlla nam ware wala jëf joo xam ne jëfi mooy yàlla la nga xam ne daf lay lor ci sa diine amul dayoo bëri da dem na dayoo ay yi dellu ci yaram ñu ci feebar ak lompoñ lépp moom it aw da am dayoo la la yàlla may ci àddina nag dala ci doom ak ak lépp lu la jox loolu itam ay mën na caawàcce yooyu ay soo koy seet amul dayoo képp ki wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim nag war ngaa teewlu ne yaa ngi musu yàlla ci mboolem xeeti xay yi xay wuy lor sa diine xay wuy lor sa yaram ak xay woo xam ne dafay lor ñëpp lu la yàlla jox de benn taalibe mas naa laxas dem ca Xuraasaan di sakku xam-xam ba am fa at yu bari di dem ci fóode di jàng ba wattu ñeneen ci jinne hadiis ci moom sàggu ko nag ne ko maa ngi ñibbi mu ne ko ma wax la nag baax boo xam ne moo ëpp njëriñ boo dem lim mu ne ko loolu lan la mu ne ko ndax seytaane xam na ci seen réew mu ne ko waaw mu ne ko ndax dana leen di jax-jaxal mu ne waaw mu ne ko frère seytaane jax-jaxale mu leen di mu ne ko ñu jañ ko mu ne guddéetee mu ne ko ñu jéem koo jañ mu ne ko mënu leen loolu mu ne ko seytaane bu la jax-jaxalee mën la koy jañal sa bopp melal ni gan guddi bi ci kër xajab borom kër ga baaw ko bëgg koo song su bëggee mucc ca xaj ba dafay làqu ca borom kër ga borom kër da moom ci jaajëf xajam rek waaw mu xam fu muy yem waaye soo bëggee songo xaj ba mën naa gaañ la wala mu xottu fay malaan de waaw saytaane yi nekk xajam yàlla su la jax jaxalee bul jékki di jeneen fee moom laqul ci boromam rek nee a'uuzu billaahi mina saytaani rajiim kon yàlla dox ba digganteeg moom de ko Seydina Ali ibn Abi mu ne sàcc di dugg ci bu dara ne ko dégg xol boo xam ne saytaane dina ko dugg di jax jaxal rek kooku bu laaj ci gëm yàlla la ndax ci gëmul yàlla saytaane amul ci moom soxla ñu gëmul yàlla ñooñu saytaane pare na ci ñoom ba nattu ñu gëm yàlla tey ñooñu nga jéem a xeexal pour yàqal leen tax na ba képp ku am jax-jaxal di fa xol wala ngay jamal ci say jaamu yàlla rek na nga ne waaw ku gëm yàlla nga def yonent bi mas naa génn di dem ci jàkkaam fekk Iblis taxaw ci buntu ko laaj ma mu ne ko ma laaj la ne ko lu tax ngay tere sama sama xeet lu tax a tere nga di leen lu tax nga di leen tere ñu dem ci julli mbooloo mu ne ko suñu jëlee jëm ci julli mbooloo damay xopp sàngar woo xam ne daf may togg ba ma ñor duwónet mukk féeg tasaaro woon bokk nañu di jëlee gam mu ko lu ko su koor ñëwee dañ may seen sëñ suma dootuma kaso ba ba weeru koor di dee waaw moo tax waaw ma bañ koor mu ne ko lu tax nga di leen xaaye fatax mu ne ko suñu bëggee génne fatax teg ko ci sama bopp di ma sii waaw pour mu bañ a dox diggante nit daal sarax suñu bëgg a joxe ba ba sarax tey dugg ca loxo nit ci ma ñu soog a teg di ci ci sama yaram mu ne ko lu tere nga di lu tax nga di leen tere jàng alxuraan mu ne ko suñu toogee di jàng alxuraan damay seey ba mel ni përëm boo xam ne dañ ko seeyal ci safara waaw fee ñu ngay jàng alxuraan rek ci loolu laa nekk ba ba nga xam ne su ne jàng nañ bari nañ jàngi alxuraan rek mu a ko maa ngi lay laaj waaw ana koo gën a bëgg ci nit ñi mu ne sa kër sa mbiru kooku daal moom su ma ko xamee dañ koy daldi fab rek muy saytaane buur la ci ñun waaw kooku moom duñ jéem a te pour ci moom dara moom dañ koy fab rek muy tali ci ñun nit ku boole nay waa ak kër ak añaan ak réew bi kooku moom saytaane ci boppam la saytaane fatal na ci moomoom am si billaahi a ne saytaane rajim allahu xalam la ca màggab yàlla mi nga xam ne mooy war ci xam te moo doylu wari lépp lu dul moom te ku dul moom xaajo nga jëm ci moom saytaane ni ngi bàyyi ko ci satana bi ñu jiri sori ndax waaw dafa nekkoon ca téeb yàlla ba ñu daq ko soril ko dafa nekkoon ca aljanna ñu daq ko soril ko rajim mooy kuñ daq mooy ci jam waaw naka la xale dikka ci ci téere bi de a'uuzu billaahi mina saytaani rajim illa jooju mooy bopp téere bi sóoratu faatihatul kitaab bi saaru faatiha téere bi ci danañu téere bi faatihatul kitaab ndax moom la yàlla jëkk a wàcce wala moom la yàlla jëkk a bind ci lawil mahfuus faatee téere bi turam la danañ ko wax itam ummul quraan um, ak ummul kitaabi ndax mooy ndey alquran danañ ko wax sabal masaani juróom yaari tagg yàlla yi juróom yaari ñaareel yi ndax faatee juróom yaari aaya la lu tax ñu tuddee ko sabal masaani yépp dañoo nidoo da ngay wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani ne malik yawmi diini iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim ihdina siraatal laziina an'amta alayhim dañ leen a ñaareel wala li nga ne dañ koy baamu ci julli gu nekk moo jëkk a wàcc na ca Makka wàcc na ca Madina itam ba nga xam ne ngay war a julli ndax julli mën da wétti mooy Faatiha moo tax waaw ñu tudde ko sabol masaani tudde nañ ko itam sant ji juróom koom ndax yonent na ne yàlla jox na ma saar xam ne am koom la mu ngi ko jëlee ca gannaaw xaras waaw danañ ko tuddee asaasu bi firi fondement danañ ko tuddee ci saaw yi firi saafara ndax yonent na saafara la ci jëpp jàngoro lu mooy saam saam nag moo di dee dee moom amul jàngoro koo pootu dee kooku moom amul docteur amul ñaan kenn mënu koo faj waaye jëpp feebar yoo xam ne du feebari dee faateetul kitaab mën na ko asan loolu Fatima doon yonent dafa xoppoon bay ragal ne dana dee Jibril wàcc fekk yonent ngi jàqaloon mu ne ko loog yow mu ne ko asan dafa xopp mu ko seetal xarafu faa nekku ci nga tafli ko ci ndox waa rek ñu fal ko ci mu wér ñu seet saar yi alquran yëpp ci xarafu faa nekku ci mu daal di jàng fa ko ci ndox ñu sange ko xasan mu mel ni dañ koo xeewoon te xeewi ko moo tax yonent ne saafara ci jëpp jàngoro lu mooy ci dee dee moom amul jàngoro danañ ko itam ruqayatu ci fi mocc ndax lu gën a ci jaan ku jaan matt daal waaw soo jàngee fatiha waaw soo jàngee faatee ci moom jaan ja wàcc saaba yonent yi dañ mas a dikki wàcc ci genn gàdd fekk buur ba waaw ñu ñaan ko reer ne ko na leen ganale mu bañ leen a ganale te guddi jaan mat ko bañ ragal ne dana dee ñu ñëw ci saaba yonent yi ne leen ndax kenn ci yéen amul lugab jaan benn waaye ne man leen ma am naa lugab jaan ñu ne ko ñëwal lugg suñ buur bi mu ne ah ñun dañ leen a ñaan a reer ngeen bañ kon nag ko lugg lu may ko tax ma fayee de ñu jox ko guddi gàtt mooy téeméeri gàtt mu jàng faatiha tax di ko rek jaam ja wàcce ñu daal di ne gàtt yi nag du ma ko sañ a jëriñoo lu koy ma dem ci yonent ba xam li ma def sañ naa toom déet na ñëwee nag li ko yonent yonent ne ko maa ngi dëkka anaa ruqayatun ndax xamuloo ne faatiha lugg la ci jaan ne ko séddoo séddoo leen ko yaa ngi nga ànd toon te defal ma cib cët ñu séddoo ko noonu mu xam ne loolu waaw loolu leew na ko moo tax faatiha danañ ko tuddee mooy itam ruqayatu danañ ko tuddee waaqiyatu la ko musal jaam waaw ci mbugalam jaam bàmmeel de danañ ko koo xam ne gëm nga yàlla wattu nga faatihatul kitaab am nga lu la doy de ci biir islam de yonent bi nga ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku yàlla may nga gëm na benn jaam lu gën lam la may kon màggal nga lu yàlla xeeb te xeeb nga it lu yàlla màggal de moo tax ñu tuddee ko kaafiyatu ji di aji doy téere bi doy na waaw pour pour lépp doy na pour àddina doy na pour alaakira moom faatee téere bi juróom ñaari aaya la nag bismillahi rahmaani rahim itam fànn yëpp wax nañ ci li tax ñu tàmbalee téere yàlla bi bismillahi rahmaani rahim li tax ñu tàmbalee ko arafu baa bañ ko tàmbalee lii nga xam ne moo gën a màgg ndax baa dafa suufeel boppam torox bi yàlla na ne ku toroxal boppam man ma yëkkati ko ku yëkkati boppam itam faw ma toroxal ko baa mi nga xam ne moo suufeel boppam nag moo tax ñu def ko muy bopp téere sanga téere yëpp te baa itam dafa am baa maanaam ni ngi mel ni dafay bii ci la nekk lépp lu nekk bii ci man lay lépp lu fasoo nekk moo tax ñu ne baa ci xaq jaam bi ñu ngi mel ni cin waa ci xaq borom ne su ma neexoon ma diital juróom-ñett ci ci gëlëm ci xam-xam yi nga xam ñu ngi ci tomb bi nekk ci ron baa rek gis ni gis ni bàyyi koy gis ni di jur yëkkati ci ci mandarga bismillah fas naa wax sama ci tudd tudd buur arrahmaani kadaa ji xéewal bi laa fu nekk ci àdduna arrahim kadaa ji xéewal bi daa gaalaaxira tàmbali nañ téere bi baa ab jar bu jar suñu yàlla yi tàmbalee ismilaahi dañoo tàmbalee bismilaahi yonent ne ñëpp mu am solo te tàmbalee wuñ ko bismillahi rahmaani rahim loolu lu dagg la lu jagg la lu ñàkk barke la lépp lu jaam di def war na koo tàmbalee bismillahi loolu moo tax yàlla tàmbalee ci réew bismillahi ngir jàngal ñu ñun ñu ko soxla bismillahi sa sama wax sama ci tuddi ci lu góor lu ñu ci lu ñu xasaf lu ñu xasaf loolu nag way naaw wuute nañ ci def ci àlla kooku yoona nañ bismillah bu fekkee ni la la bés yoon a wax te mooy di njéer nga ne bismilaay dana ma jàng ci turu yàlla bu fekkee ni da ngay lekk boole bismilaay maanaam aakulu bismilaay maa ngi lekk ci turu yàlla day dugg ci sa kët boole bismilaay maanaam maa ngi dugg sama kët ci turu yàlla sooy xaddu bismilaay seen yaa ngi xare ci lépp gi nga xam ne moom la jaam bi jëf lépp looy def na nga tàmbalee bismilaay sooy war sa daawa neel bismillaay sooy wàcc neel bismillaay sooy dugg sa kër neel bismillaay sooy génn neel bismillaay sooy taal sa neel bismillaay soo koy fay neel bismillaay sooy lekk neel bismillaay sooy naan neel bismillaay sooy hoddu neel bismillaay sooy hoddu sooy jigi sa kodaay neel bismillaay sooy sëy neel bismillaay soo defee loolu saytaane doo am cët ci sa dara ci la yàlla jox am na jaam boo xam ne dafa nekkoon lépp lu muy def rek ne bismillaay moromam jaamam lépp lu muy def du wax di ci laaye seen yaari saytaane ay gisante saytaane seen si ñu di tuura tuur de day bajj seen si lappa lappa lappa lapp bay bëgg a dee mu ne ko yow la la jot mu ne ko man maa ngi nekk ak waa yoo xam ne du sàggan nit ki li muy def rek ne bismilaaye ma def ca biti du ma waaw suy lekk ne bismilaaye du ma mën a lekk ak moom mu lekk wàcc ma suy naan ne bismilaaye amul dara lu muy def daal te waxut moo tax amu ci moom benn cët moo ma tax a yooyu ñii kenn ka ne ko xuteeg man man sama waa ji du wax bismilaaye mukk moo tax buy gis gërëm ma di ànd ak moom buy lekk ma lekk moom buy naan ma naan moom buy sol yére ma bokk koog moom moo tax ma day nii moo tax ne waaw lépp lu jaam di wax def rek wax bisimilah bisimilah ci jaam daal doy na walis bépp doy na walis waaw bépp gàndaay <coughs> ismu lu ñu bàyyi ko ci sumu ji firi yëkkatiku wala lu ñu bàyyi ko ci sama ji firi mandarga ñu ne ñu bàyyi ko ci sumu te loolu lañ gërëm basri ñu na waaw kon di yàlla yi ay xalam lañ waaye di ay xalamaat waaw su fekkee nag ñu ne ñu bàyyi ci sama tudd yi mandarga waaw loolu mooy njëram mutasila mais tudd yàlla yi ay mandarga rek lañ ci yàlla foofu la ñun sunna ak ñun mutasila wuute xaat ñun sunna fas nañ ne yàlla mos da dañ di tudd mboolem tuddam yi meloo mboolem meloom yi ñun mutasila nag waaw ñoom dañoo réer ñu ne yàlla amutoon i tudd ba mu sàkk bi ñu njëriñ amutoon i melo duñ fàtte mbindéef yi nag ba mbindéef yi wutal ay tiit waaw ak melo su mbindéef yi jeexee mu delloo di dootu xam si dootu xam melo waaw ñett yooyu waaw ismu ñu ngi ko jëlee jëlee ci samatu ji ci ci di mandarga ci di yàlla yi nag ay xaaj lañ ci di yoo xam ne ci di jëmm ji lañ ak ci di yoo xam ne ci di melo yi la ak jëf yi ci di jëf yi ci di jëmm ji yooyu kuliyaatul asmaa yi yooyu tur yi nga xam ne bu teftale dara lu mooy jëmm yàlla ji ñu ci lu demee ne allah al quddus al xaq yu demee noonu tur yi nga xam ne ñoo ci des nag ñoom nelaw yi lay firi arrahmaan yi dafa yërëm waaw ñu tuddee ko yërmande ga xaaliq ko dafa bind ñu tuddee ko lam bind rabbu dafa moom ñu tuddee ko moomeel ga maliku dafay buur waaw ñu tuddee ko nguur ga yooyu tuddi ay melo lañu ak tuddi martaba mel ni ku nekk ci la nga xam ne mooy tuddi cosaanam kooku mooy turam am na yeneen tudd nag yoo xam ne ay dara jaam ko jox ak ci la mën nañ laa tuddee ba ci la toog sax mën naa mën naa nekk sa tur ba nga toogee borom kër gi mën naa nekk tur yooyu yëpp ay tur la yoo xam ne tey dara la ñuy wane waaw tudd yàlla yi noonu la mel tudd boppam yi nga xam nag ne moom moo mooy tuddam dëgg dëgg dëgg kooku moo di allah wute nañ li tur la tur la woo xam waaw wuñ wuñ sant la du luñ ci benn baat ñu ne déedéet mi ngi xare mi ngi xare ci baat li gën a wéet mooy ci benn baat waaw tudd alam la rek te moo gën di alam ci alam yi ci suñ si booy gannaaw bu mu muy sibira ca aljana ñu ne ko lu la yóbbu aljana mu ne li ma wax ci naaw ne allahu moo gën ci alam ci mboolem alam yi ne loolu ko yóbbu aljana xam na ñu nag ñu xara ci ah, aliha waaw jijiri gëlëm na ndax xol yëpp gëlëm nañ sama gam ga xam na ñu ne mi ngi bàyyi ko waaw ci laaha xam na ñu ne mi ngi bàyyi ko ci waliha jijiri nani koy na mu ndax xol yëpp nani koy nañ waaw ngëp topp ko yooyu yëpp wax yi nga xam na dafay wane ne dañ koo xare ci baar yëpp di jublawuy xarut allah alam la ci jëmm ja nga xam ne war ji xam la te doy na wan ji moom soxla na jëm ci moom mooy def waaw te du jeex mukk ak xamam xamuta tambaliku xamut jenn jamono joo xam ne yàlla mas na fee ñàkk nekk ak mu jëm xamuta jeex séntu jenn jamono joo xam ne bu ñu faagee yàlla du xam kooku mooy yàlla mbindeef yi moom rek mën a doo yàlla lu dul moom am na jamono ju ñàkkee am na jamono ju mu séntu mu ñàkk moo tax dara mën da doon yàlla waaw lu may moom moomu rek te lépp loo jege nag moo la ko gën a jege te bët yi duñ ko gis de kooku mooy ki nga xam ne moom lañu war a jaamu laaw moomu rahmaani mooy aju xéwal mbindaa fu nëpp ca duniyaa rahmatu yërmande lay firi yërmande mooy sew a xol ngir ñëweti ci ci jaam su la loolu gaaree mën naa sàkku ci yow nga jox ko xéewal soo yërëmee miskin bee sa xol sew loolu dana tax nga nga jox ko xéewal de yëpp tudd nag boo xam ne jomb na ci yàlla suñ ko tuddee yàlla na nga seet rek xam na njëlbéen xam na mujj njëlbéen nga jomb na ci yàlla waaye mujj ga gën a dagan ci yàlla de teew ak xol jomb na ci yàlla ndax yàlla xamul sax xol waaye joxe teewal na waaw kooku moom yàlla mën na koo melloo de moo tax de rahmaanu suñ ko firee aji yërëm yërëm jomb na ci yàlla ñu koy firee aji teewee waaw aji joxe teewal de te de bala xaala moom rahmaan ndax jaam yëpp lay jox yërmande ma am kët yaakaar kenn du ko mooy ba tax mu doon yërmandeem ci yow kenn du ko topp ba tax mu yokk sa yërmande ñëpp la xemale fii ci àddina mooy rahmaanu dunya mbindeef yëpp moo leen di yërëm waa alaaxira nag cawee faye ñi nga xam ne ñoo ko doon topp waaye fii ci àddina moom xam ne wut kenn ak kenn ci koy topp ak ci koy moy ak ci ko gëm ak ci ko weddi yëpp yee xéewal nañu àddina yi ñoom jaamee ci xam yàlla bind na téeméeri yërmande juróom ñeneen fukk ak juróom ñeneen yëpp ma ngi ko denc yàlla la indi ci àddina lépp loo gis ci xéwal yi àddina ba àddina sosoo ba léegi ci ba benn xaaj boobu rek la bàyyeekoo ci yërmaande ci leen bi ñu ci seen bopp di yërëmante te wàcc di yërëm doomam te daa ba sax di yëkk ci tànkam di dëgg doomam jële waaw daf koy yërëm benn xaajam yërmaande di ñëw ci àddina nag su àddina jeexee yàlla fab ko teg ko ca juróom-ñeneen fukk ak juróom-ñeneen fukk yam dencoon liñ ci wéer yu mat mu jagle ko na ña xam ne ñoo ko gëmoon yàlla ñu fa yàlla boole bu keroog nag waaw topp yàlla fayam di fa ko ñëw waaye fii ci àdduna moom àdduna moom ñëpp a ko bokk ñeenti buura masa moom àdduna ba mu daj amul frontière ñaar ñu jullit lañ ñaar ñu yéefar lañ ñaari jullit yi mooy Suleymaan ibnu Daawuda ak Zulqarnayni ñaari yéefar yi waaw moo di Namruud ak Buxtinasar rek su fekkoon ni ku ko topp rek lay jox àddina waaw kon Namruud mi nga xam ne dafa weddi bay xootañ yàlla waaw kon yàlla du ko jox moom àddina yëpp rek mooy ci moom Ibrahim fànn yëpp wax nañ ci xaw ma gudd de naw yi wax nañ waaw jumla ji ndax kubra la wala suxra waaw xaju waayab jaar ji ndax fin la waaw wala lisin la lañ tasrif wax nañ ci waaw rahim rahmaan mi ngi bàyyi ci rahima waaw rahimu ji ci rohum waaw ci la ci lañ ko xare yonentu na nañ loolu yàlla wax na ne waaw ak jagañaale waaw maa ngi ko xare ci waaw sama baatab sama tur ci rahmaan ku jokk sa jagañaale maanaam ku jokk ak bokk yàlla jokk la de ku dog waaw yàlla ci bokkam waaw moo lay dogal boppam de fukki xaraf la ak juróom-ñaant li sirru ci loolu bëkk ne ci safara fukki la ñëw juróom-ñaant naka la xala ñëw te saaru mu des ci alayha tis'ata ashara ci jàng fukki xaraf yi day juróom-ñaant juróom-ñaant téeméer fukki juróom-ñaant a yóbbu safara de bismillahi rahmaani rahim room mas naa wopp bopp boo xam ne daf ko bëgg a rey docteur yi faj faj li ko leen ci jamono Seydina Omar ibn Khattab mu bind Seydina Omar ne ko da xamuloo dara ba bopp bi métti Seydina Omar yónnee ko mbaxana su ko tegee ci bopp rek mu tedd saa yu mbaxana may tegee ko rek mu dellu fa mu newoon waaw fatti mbaxana ma li ñu dugg fekk bismillahi rahmaani rahim la Omar bind waaw dugal ko ci biir mbaxana ma bu ko tegee ci boppam rek mu wér saa yu mu ko simmee rek waaw mu feebar ba dellu si aat bismillahi rahmaani rahim <clears throat> yenante tudd yàllaa ci nekk allahu bismillahi rahmaani rahim yetti tudd yi yàlla tudd na boppam ñetti junne tur junne malaayika yi rek a ko xam junne yonent yi rek a ko xam benn junne bi ñetti téeméeri tur a ngi ci tawreet ñetti téeméeri tur a ngi ci lindiin ñetti téeméeri tur waaw ñu ngi ci sabóor de téeméeri tur yi ci des ñu ngi ci ñëw na juróom-ñeneen fukki tur ak juróom-ñeneen fukk yëpp ñëw na ci alquran ak benn biñ nëbb mu mottali ko téeméer tur yooyu yëpp yàllaa ko tudd te yàlla lañ koy waxee te jën yàlla ji la la neexee nga ne allah su la neexee nga ne rahman kéefari nañ xamuñ rahman waa ngir réylu namuñ xamuñ mu xëy rahman maanaam kooku tuddee boppam rahman waaw moom la fakk fakk lu xamuñ ko bismillahi rahmaani rahim mbool yu bëree ngi ci ci li mag maxrib ci néeg ñaar téeméer juróom benn ci li mag ñett téeméer juróom ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar mooy sirru boobu nga xam ne képp ku am xaajo jàng ko bismillahi rahmaani fay xaajo ja safasin juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar amul xaajo jum bañ nag te tur yàlla yi nga xam ne la saar danañ a liggéey lu mooy basmala kooku moom mooy caabi mboolem téere yi moo tax moom mën nga caa waaw mboolem xaajo rek lim ndaw ba nag benn fukk ak juróom benn la muy cër bu yéemu daje fukk la waa ak ak juróom benn arafi saay yi nag fukk ak juróom ñenant lañ yonent na ne géñ naa ci yàlla ne dégg naa ci jibril mu ne géñ naa ci yàlla mu màgg ma dégg naa ci israfil mu ne géñ naa ci yàlla dégg naa ci yàlla mu ne yàlla na ne géñ naa ci sama màgg ak sama teraanga nekk jàng bismillahi rahmaani rahim jokkale ko faatihatul kitaab ci benn na ko noppi yéen ci malaaka yi seede leen ne naa ko mbooleemi bakkaatam nangul naa ko mbooleemi xiiwam te woowa lamiñ duma ko lakk mucc ci safara te danaa ko danaa ko xarfe aljana mu ko ci mbugal danaa ko xool loo bés ba nga xamee ne ñëpp jàq na moo tax ba képp ku jàng faatihatul kitaab waaw gën na nga jëkk nga wax bismillahi rahmaani ci bopp bi ànd ak fuqaaw yi ñoom waaw wuute nañ ci baat boobu ndax ci saar wi la bokk am bokku ci ci alquran la bokk am bokku ci wuute ngoogu boo xam ne wuute bu nekk nit mën naa génn ca wuute ba lu mooy boobu bu fekkee ni ci alxuraan la bokk bu ko ci génnee xéefar nga bu fekkee bokk ci boole xéefar nga waaye li wét mooy su nga xam ne ne laaya la ci faatiha ca saaru nam bi kooku kon bokkam ci alxuraan moom amul werante saar wu nekk ab déedéet loolu lañu wute laaya ci téere bi ñu di ko teg ci bopp saar yi pour di ko xam ne fu saar dale ak fu saar xem ci faatiha la bokkam bokkut ci faatiha kooku yi wute nañ ci wute bu bari ndax xadis yo wax ne ci jàng faatihatul kitaab ak ci jàng saaru alhamdulillahi rabbil alamina loolu nag dàqoonte wuta ne bismillahi rahmaani rahim ci la bokk ndax alhamdulillahi rabbil alamina ci du saar wa rek la laaj nañ yonent ne ko bismillahi rahmaani rahim lu mu doon ñu ne tudd la ci tudd yàlla yi te kat ma xamal leen leen dara doxu diggante ak tudd yàlla wu mag yi ñu la bëggat lu mooy ni dox diggante weex weex ak bët ak ñuul ñuul ba loolu la bismillahi rahmaani rahim jege bismillahi la xam ne moom lay aarif yi ne yëpp di yëngatu bëgg koo xam dara doxul seen diggante lu mooy di dox diggante weex weex a bët ak ñun ñun ba bismillahi rahmaani rahim ci fatihatul kitaab ndax ca la bokk ndax bokku ca ña wax ne bokku ca ñu ngi laaye sakraar bi nga xam ne mooy ñëw ne rahmaani rahim su fekkoon ni bismillahi rahmaani rahim ci fatiha la bokk duñ daal di baamu rahmaani rahim léegi ci laay di ci jëkk waaye fekk na fatihatul kitaab moom noonu la tëddee baat yëpp baatam yëpp dañ ko ñaareel ba ni mu jeexe bismillaahi rahmaani rahiim alhamdu yàlla ne wax leen ma ne wax leen ma yéen jaami ne alhamdu xaaji cant yenant yi laa ji nak la ñaal yàlla xooloo lañ ci nattale wax leen ne cant ñaal na yàlla de yàlla man rabbil aalamiin kay aji kay aji moom jaami de yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yëpp aalam njidut yàlla tabbina ci baat amul mufrat ci baatam aalam ci boppam jamono la alamina nag dañ ko jamoxaat jamu musakkari ngir mu balaxaal li yàlla am ci alam nag kenn xamul dayoom yàlla am na fukki ak juróom xam ne addina yàlla bind na ci mbindeef junne alam yoo xam suufi juróom-ñaar mu ne ay mbindeefa nga fa ay doomu aadama lañu mu ne xamuñu ne yàlla bind na aadama iblis am na fa mu ne xamuñu ne yàlla bind na iblis di gën a bëri ci mbir mi nag ci géej gi am na jën yoo xam ne rëy nañoo rëy rëy rëy de suñ ko tegoon fii bët mën na xool fa mu am na jën yu tuuta tuuta tuut ba suñ ko tegoon fii bët mënu koo gis ngir waaye li lay woon bëri ci mbir mi ci géej mooy bi yàlla joxee yëpp mu moom suuf lépp amul frontière moom jur janaaw yi moom jinne yi saytaane yi mu ne yàlla léegi daal dama bëgg nga farale maa kam bindee yi man ma di leen jox ration mu ne ko mënuloo ko mu ne ko benn at mu ne mënuloo ko mu ne weer mu ne mënuloo ko benn bés mu ne mënuloo ko mu ne ko malal leen boog benn taabal rek mu ne ko ak defal yooyu jinneeg seytaane lépp lu mu xinis bu kenn liggéeyee fi teeg ñu nanti weer lu may pare ñam rek ñu pareel koy ñam di pare di pare di pare ba nga xam ne dañ la lee ñam ya dem na ci téeméeri farfaq ak ñaar fukki farfaq farfaq bu ne ñetti kilomètre ñu dal koy taabal ba mu fees mu ne ah, yàlla xebalal say mbindeef na ñu ñëwaañ kenn ci biir géej gi rek ñoom mar lépp ne ko ñetti lii daay lekk bët di set te tey yow lañ ma féetale ana ñaari xaaj yu ci def man daal tey ñu ci sa ngan daal daal ci mbir mi laa yàlla Souleymane xam ne yàlla a mën loolu moo la wan sëriñ bi ñu xam ne seen yaa àgg na foofu ñoom nag yàllaa leen moom moo tax de wax leen ne sant ñeel na yàlla li xam ne moom moom mbindeef yooyu rek alhamdu juróomi xaraf la ci li ñu war ci la. boo waxee baatal alhamdu dana dana dañ ci am yoolam ci julli julli juróom alhamdulilah juróom ñetti xaraf la daraja aljanna juróom ñetti daraja la soo waxee ne alhamdulilah daañu la tànnaloo juróom ñetti daraja yooyu bu la ci neex nga dem dëkk ca alhamdu nag sant yàlla ñaari xaaj la mën nañ koo sant ngir ne la yu mag yi lamboo mën nañ koo sant itam yu bëri yi nga xam ne moo moom la maye de yëpp yëpp cant yàlla meloo na ci jëmmam ba noppi lépp looy gërëmee yàllaa la ko defal kon kooku nga war a sant moo tax jaam bu nekk war na saa yu nekk muy wax alhamdulilahi rabbil alamin cant nag ñaari xaaj la cant ak mutlaq ak cant ak muqayyad malik ak saafee yi dinañ ko waxu malik na ne cant ak mutlaq moo gën te alhamdulilahi rek bañ ko wax ci dara saafee yi ne cant ak muqayyad ndax moom rek a ñëw ci alxuraan foo gis alhamdulilah ci alxuraan alhamdulilah lesi lañ koy teg alhamdulilah lesi hadana li hasa alhamdulilah lesi xalaqa alhamdulilah lesi asaba anal hasana alhamdulilah lesi sabaqana waadahu dem ci ci alxuraan yëpp dañ koo tënk ci xéewal ndax yéegi ne bon nag booboo gën Malik ne mutlaq moo gën xaw ma ko ci gën a xam yàlla waaye rabbil alamin sax sant na cant gi xaas sant ñaan na yàlla lu tax mooy rabbil alamin di téere bi ñu ngi ko tàmbalee fatiha fatiha di kitaab nee naa leen téere yàlla yi wàcce yépp te boole ko ci alquran alquran boole nañ ko ci fatiha di kitaab fatiha juróomi tur yàlla moo ci wàcc wax na lillahi laahoo ngoo gi tur yàlla wax na la alamin rabbee ngoo gi tur yàlla wax na rahmaani muy tur yàlla rahim muy tur yàlla mu ne malik yi amu diine malik yi tudd yàlla juróomi tur yooyu wàcc ci alxuraan ñooñ cosaan ci donc lislaam yi juróom de donc lislaam yi juróom laa ilaha illallahu moo ci jëkk laa ilaha illallahu allahu rek la tekki ñaareel ba moo di julli juróom julli juróom rabbee ko tekkale rabbil musiri aji yar aji héenal ci yar lëf di ko yéenal ba mu baax loolu la julli mel ci lislaam yi jaam bi jaam boo xam ne fay wattu ay julleen ni ci di gën a yar lislaamam ba mu yéen li teg rahmaani rahmaani te teg baaraxaa la ci yërmaande foofu la koor génne yërëm bi nga yërëmoon nit ki nii ba di ko soxla yërëm yërmaande ji jot na ci yow da nga ne yaa ngi mosal sa bopp ci nit ki nii di mos nga xoor ba mos la piis la téye ndax nga gën a mën a yërëm nit ki moom looloo tax ñu xoor rahim yi aji yërëm lay firi foofu la asaka jóge yërëm nit ki moo tax nga fab xaaj ci sa alal jox ko bali ci yow mi diini foofu la aj bàyyi ko de ndax wóorab tey jëm yàlla ba mu fa nga jaam yëpp ñu jëm ci benn pàtte ñu ngi niroog ba yàlla xoolee jaam yëpp ñu dem yaa ji yàlla ba ca Makka kitaab alxuraan juróom ñu ci fànni xam-xama ci nekk lépp tollu ci fatihatul kitaab alxuraan benn ngay jàng laaya laaya yi di tagg yàlla am laaya yoo xam ne dañuy tagg borom bi bu baax wala muy saxal tawfiq wala muy saxal yërmandeem tële di jële yërmandeem wala muy sëkku wala muy indi sarihatu xatte wala muy indi xaqiqatu baatin wala ñaan wala waade te tey ñu jëkk ak waade fànne alquran yëpp noonu la day laa yi indi lii rek indi laa ma ne dana muy takk yàlla wala mu di ko wéetal wala muy gën a muy sëppi wala muy yoonal wala muy indi xaqiqa wala muy ñaan alayhim xitaan ngoo xayril maxdubi alayhim wala daalliina waade ngoo bii façon jàng ci kaamil bi yëpp saaru gàtt yi indi nañu ko tax yàlla ne wax leen ma ne alhamdu xaaj gëna sant yonent billahi yàlla rabbil alamin ko yaji moom bi arrahmaani kadi aji xewal mi naaw no jaabi yaa rey ni kadi aji xewal bi daa ci àlaxira maliki yow mi diini kay buur ab bisab pay ba yàlla mi nga xam ne dénkam yàlla moom rek ay doon buur te dëgg-dëggum yàlla rek ay buur waaye ci àddina waxtu wu ne yàlla ci samp ay buur réew mu ne am na buur bu ko yàtte su pencam yàlla nag bañ fang yëpp yàlla ne li ma ne kan la nguur ñaal tey kenn du tontu mu ne kuy buur tey kenn du tontu mu ne billahi waaye a ya tey nguur ñaal na yàlla rek ban ñi nga xamee ne mooy buur set waaye nag bët du set am nañu bokk moom ci nguur woowu mu jàlle boppam bés ba nga xam ne kenn du xëccoo moom nguur mooy maliki yawmi diini kay buurab bi tey ba de ñëw tig la jaam war a ragale meram yàlla de meram gann buur rek ci àddina mën naa indi musiba moo xam ne ñëpp danañ ko jot guerre yi am ci àddina yëpp benn bu buuray mer rek daal guerre fekk la day am ci toftare ci musiba dem meram benn buur rek ci buuri àddina moo mën a indi musiba yi ñu xam ci àddina takkam takkam buur bi nga xam ne mooy buur ab buur yëpp de yàlla ñu yàlla musal ci melam buur nag dëgg-dëgg mooy yàlla buur bu ne itam daf laa jox melo ci meloom rek moo tax yonent ne ñett kenn du leen xoyofal lu mooy naate borom xam-xam ak buur bu jub ak mag ndax ñooñu ku ci ne yàlla daf ko xodd na la ci meloom buur yàllaay buur su da buur rek yàlla la jox meloom nga magal ko ngir loola borom xam-xam yàlla rek ay borom xam-xam fu am xam-xam moo la xodd na la mag itam yàlla rek ay mag su dund ba di mag yàlla la jox melaw mag woowu moo tax de ñett ñu yonent naa fekk rek a leen di xoyofal te na mag ndaw bu teralee mag di atam ya yàlla dana ko mu xebal di ko teral bay ko teraanga jooju mu teraloon mag ma de di nga xamee ne jaam na béere bi ne sama jaam bi na ma rabbil alamin ne sama jaam bi na ma rahmaani rahimi maliki yawmi diini mu ne sama jaam bi tagg na ma léegi nag yow laay déglu léegi lépp loo laaj rek ma jox la loolu ñu ngi mel ci ñun naka gëlëm bi way yéram way ko baj sa xolam ba mu ne ko waxal loo bëgg ma jox la ñu nit yonent na ne yàlla na ne séddale naa faatihatul kitaab sama diggante sama jaam bu ñaari xaaj ba ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne sama jaam bi tagg na ma rabbil alamina rahmaani rahim maliki yawmi diin mu ne sama jaam bi màggal na ma tagg na ma mu ne iyaaka yow daal naabudu la ñuy jaamu mu ne lii moom sama diggante sama jaam bi la dox wa iyaaka yow daal nasta'inu la ñuy dimbali ko rek fekk nga ko ba mu ne laajal loo bëgg ma jox la loo laaj dana indi na yàlla nga jubal ñu traité yoonal ñu fokk moo di aju ji ba mu ne laajal loo bëgg ma may la dañ ko ne yàlla moom ay yoonu yàlla moom ay njub ndax loolu ma may tax a jaar dina moo tax saaru ñu di ko tuddee saaru julli ndax yàlla na ne damaa man la ñaan bii moom la ñaan njël jën gi yow na la ma jox la nga ne yàlla nga ma jubal yoonu jub da nga julli juróomi julli rakka bu ci ne dañ ci la ndax jub mooy may jaam moo koy may teewal fii ci àddina moo koy may na la ci àllaaxira njub nag ak li ñu ko mën a biree rek mooy topp ndigal bàyyi tere maqaam bu nekk am na kuy joxe ndigal boo toppee ndigal la rek jub la am na kuy tere boo tere rek jub la topp ndigal bàyyi tere daal mooy njub moo war diggante wàccutam doomam wàccutam moo war diggante di ak jëkkatam moo war diggante fàttaliku kuuram moo war diggante jaam ba boromam rek moo war diggante taalib ak sëriñam boo xamee ne daal liñ lay digal yaa ngi koy topp rek yaa ngi ci yoonu njub iyaaka naabudu iyaaka yow yàlla daal naabudu lanuy jaamu jiital bi ñu jiital ma xolam bii nii ak lay jëriñ maanaam du jaamu kenn lu ma yow loolu la jiital iyaaka di jëriñ wa iyaaka yow daal nasta'iin lanuy dimbandikoo moom it da ngaa takk du ma dimbandikoo lu ma yàlla iyaaka naabudu foofu la julli mbooloo génn ci alxuraan bi nga xamee ne mbooloo mi dañoo war ànd di julli moo tax baatam naa bu du jëw ñu tëgg ko ci tëgg mbooloo su fekkoon ku nekk fay julli moom rek kon tey ku nekk iyaaka aabudu lay wax iyaaka naabudu nag moo xam le sariyaatu wa iyaaka nasta'iin itam moo xam le xaqiqatu de ñu teg zaahir moom dafay gis ne ñu ngi jaamu borom bi loolu xaasi bëgguñ loolu xaasi nag ñoom lu ñoom mënuñoo jaamu de ñu ngi dimbali ko yàlla rek yàlla leen mën a dimbali ci jaamu bi dañ mën koo jaamu te loolu soriwul dara su fekkee yow jaam bi julli nga ba àggal soo seetee la ci yàlla def doo gis dara doo def de julli balaa mën a wét nga laab laab mën daa mel mooy ci ndox mën daa bind ndox yàlla sàkk ndox yàlla sàkkuloon ndox jàpp ci jëkk moo lay jëkkata boo jàppee ba noppi ci li mën da wét nga mën a yaram jàngaay li yàlla la ko jox ba nga mën a julli taxaw juru koo ko si jóor laaj na la ci kattan kattan loolu xañ bi rek a tax mën ko waaye soo lekkutoon doo ko mën jox digal kattan li ba noppi jox la wërsëg yi nga xam ba mën a am kattan loo boo taxawee di julli julli du wét lu mu ne ci nga jàng alquran alquran di ko téere téere yàlla la di julli daal nga gis lépp yàlla ne yow defuloo dara doo mën lu may ne ko yow laa mën a yow laa dimbali ko pour mën a mu wala aji jub jub nag danañ ko firee ñaare firi ci alquran jub boo xam ne mooy dimbu njub ci xolof jaam ba kooku yàlla rek ko mën ak njub moo xam ne mooy tegtal jaam bi yoonu njub loolu yonent yi mën ak ko dégg moo tax yàlla wax yonent ne ko innaka laa tahdi man ahbabta man laa jubal ki nga bëgg abi taalib la gënoon a bëgg abi taalib ko gënoon a bëgg moo ko gën a jariñ waaye dee na ci téefar ba mu méttee yonent bi yàlla ne ko man laa jubal koo sopp man maa jubal ku ma sopp te mu ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim da nga jëm ci yoonu jub loo xam ne ndigle mi yonent bi man moom wali wali man ko kóode ji man ko mooy tegtal jaam bi yoonu njub rek bu caawee baax na bu caaw ci yow wàcc nga dimbi njub ca xolob jaam ba nag kooku yàlla rek ko man danañu yàlla jubal ñu ñëpp siraatal lazina yoonu ñaaña anam ta tee nga aleen ci ñoom yàlla nag ma jubal yoonu njub yoonu njub mooy lan mooy yoonu ña nga xam ne xéewal nga leen ña nga xam ne yàlla xéewal na leen mu ngi ko firee ca saaru Nisaa wax la ñoom incha allah mina nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina ulaa'ika llaziina an'ama llaahu alayhim mina nabiyyiina wa siddiqiina wa yàlla yu yiw yàlla bu yiw mooy bépp jaam boo xam ne meloo na meloo yàlla tagg ci alquran bi lee la jaam sax saalihu la ñooñu ñooñu yàlla jox xéewal ñoom ngay ñaan aw ci seen yoon ñu lay ñemeloo ci baat bi te njub li ngay ñaan ñu lay ñaan yaa ngi ñaan aw yoonu njub njubam ñan njubu ñoo xam ne xéewal nga leen moo yonent yi yonent yi koy am na ci yàlla xéewal waaye am na ci ñoo xam ne yàlla natt na leen natt yu métti su ci doon loola jàmm bi dana ragal su noonu siraata lazina qutiloo siraata lazina xuriqoo siraata lazina jubixoo siraata lazina nutiroo kon nga ragal de te loolu am na ci yoon muy am na jaam yoo xam ne dañ leen taalal safara sànni leen ci naka Ibrahima am na jaam yoo xam ne dañ leen a rey ni ci am na ñu andi waaye am na ñoo xam ne yàlla daf leen rek loolu lañ leen ñun ñëpp moo tax mu ne ah yoonu ñoo xam ne teewoon nañ leen saaram ak magam yëpp dina ko wan jaam bi su saar bi nag mooy nga xam ne moom la jaam bi ñeme la attan mag bi nag kenn attanu ko. moo tax tudd ko foofu kaar bi la tudd waaye lil maxsuus bi du yoonu ñu mere ña du yoonu ñu bugal ña alayhim ci ñoom ni ci aw yahud wala saalina du jaagen yoonu way réer ña de ni ci nasaaraale yàlla na yàlla jubal yoon woo xam ne yàlla ñu yàlla jubal na leen te xéewal na leen te bum ñu xawale ci yoonu yahud ñi nga xam ne yàlla mere na leen bum ñu xawale ci yoonu nasaara ñi nga xam ne réew mi ba defoon na yàlla wala Mariama yàlla nga yàlla rek yàlla Isaa du yàlla Mariam du yàlla yàlla leen sàkk ñoom ñaar ci jaamam bu jigéen la ci jaamam bu góor la su ko neexee mu xalak leen kan du dara daf leen a bindoon ganaaw bu ñàkkoon te yàlla mën te ñàkk dañ ba lekk ka naan su lekk ka naan fokk nga gaan waaye fokk nga tojal loolu ku ne xam ne jëkku ci jëm yàlla moo tax be ñoom ñaar jaam lañ ñu yàlla tànn waaye ay jaam rek lañ nag Mariam lu foor yàlla la ndax yàlla du doom te moom na doom mooy Isa Isa li muy foor foor ci yàlla jaamam yàlla rek la na yaay yàlla du mën am yaay ndax boo am yaay yaay jaala nekk sa yaay yàlla moom moo fi nekkoon ba fi dara newut moo fi ne bu lépp jeexee moom rek a doon yàlla mille neuf cent soixante lañ siis ñuy wax ren dat boobu lu mu tekki mooy bi Isa juddoog léegi te adduna am na fi ay junne junne junne at Isa soog a juddu kon ku doon yàlla ba Isa juddoog Isa li muy foor yëpp jaamu yàlla lay yonent bi yàlla bu yàlla tànn jaral ko ci adduna alaxira waaye foofu rek la yem nag